affaire constitutional reform fanaa bokk na si main topic su ngeen raise like amoon nañ draft constitution am na lu ñu defar ba pare loolu la gars yi reject waaye specifically waroon naa am pickings yoo xam ne yooyu lañ jël ñu ne yii moo tax main reasons yoo xam ne lii moo tax ñu reject ko